lii waaye yeewi askan wi nag jamono ji fas yéene déposé ab recours ca kanamu conseil constitutionnel mu nar a doon ñaari recours yoo xam ne rek daañu ko teg ci taabalu conseil constitutionnel bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Vox Populi nag loi bi jëm ci numéro 2024 04 bi nga xam ne rek ca lañ tënku ngir tuxal élection présidentielle yi nag jamono ji attaqué nañu ko fanweeri député ak juróom-ñeent yu bokk ci yeewi askan wi nag fi mu toll nii def nañu ab pourvoi Thierno Alassane Sall Pape Djibril Fall ak yeneen i député yu bokk ci taxaw nag ña ngay yëngu jamono ji nag bal bi mi ngi ci juróom-ñaari sages yi nag ñoom ñooy xool nañuy doxalee rek ngir daal di jouer match bi Ndiaga silla nag ma nga yëkkati ay conseil di ko jébbal juge yi nga xam ne rek ñoo nekkee ca conseil constitutionnel professeur Babacar Gueye nag di ab constitutionnaliste nag ma ngay xam ne nag ne waa conseil constitutionnel dañoo war a àddu nag jëmale ci mbir yi te daañu wax nag loolee ca lañ leen di xaar lu mu ci mënti doon daal constitution bu Sénégal jamono ji nag mi ngi ci guut loolee la Sud Quotidien daal di xëy xam ne nag ginnaaw décret bi nga xam ne rek dañu ko taxawal ngir lu jëm ci convocation corps électoral bi nag rawatina loi bi nga xam ne rek ci lañ tënku mu di article 31 bi nga xam ne rek woote nañu ko foofee ci assemblée nationale Ndiogou Sarr di ab enseignant chercheur ci wàllu droit en public nag ma nga indi ay leeraange nag jëm ci loi numéro 4 2024 yër leen bi la yëglekaay député yu yeewi askan wi nag jamono ji ña ngay song waa conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag ñoom juge yooyee jamono ji nag ñooy arbitre bi bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di l'enquête mi nga xam ne rek def na ab gëstu bu rëy rëy li waral ñu daal di soxal élection présidentielle yi yéenekaay bi ne fanweer ak juróom-ñeenti député yu yow nag jamono ji dem nañu seeti juróom-ñaari saa ji nag ginnaaw bi ñu tënkoo ci article 75 bu constitution bi waaye Yewwi askan wi nag jamono ji doon nañu ay cavalier taxawu askan wi nag di ŋàññi kii di Pape Djibril Fall Thierno Alassane Sall ak fekkee ma ci boole ndax njiitu réew mi dafa jëm ci recours ñeel article 52 bu constitution bi nag boobee laajte moom la yéenekaay bi daal di xëy samp niki tey ji nag waaye lu mu ci mënti doon daal moom njiitu réew mi nag ca bitim réew jaratu fa dara ndax carrière am nag lépp taq na suuf l'observateur xëy di càmbar nag ëllëg président Macky Sall ca bitim réew mu ne nag boo moytuwulee daal lépp lu jëm ci wàllu crédibilité am image am ak légitimité am nag dees na doon lu ñuy waxtaanee te loolee nag boo moytuwulee mën na koo yàqal nag lu jëm ci ay chance yoo xam ne rek waroon na koo am ngir am ay poste yu baax ca bitim réew yéenekaay bii di Le Quotidien nag dëggal ko ba noppi ne fi mu toll nii kay coow li war na ko moom président Macky Sall jëm ci report bi ñeel élection présidentielle yi jàngalekat yi tey jii nag soobu nañu ci ab débrayage parrainage député yi yow nag dem seeti juróom-ñaari sages yi aar suñu élection nag di fas yéene wàcc amal manifestation talaata ji lay doon waa kënes nag la ñuy sàkk bokk nañu daal di sàmmonteeg calendrier électoral bi ci noonee sax nag laas yëglekaay ma ngay xam ne dëgg yi nga xam ne rek kii di Victorine Ndeye ma ngi koy xamle ci biir yëglekaay bi nag moom jëwriñ ji nag ma ngay solo robu avocat njiitu mi nag jëm ci report bi ñu reporté lii di élection présidentielle yi nag moom Victorine Ndeye nag ma ngay xam ne ne de la république intérêt Sénégal waral mu daal di tuxal yi la élection te boobee décision nag am nañu fare ci ku jegi te mooy li leen gënal ci Walf Quotidien nag ma ngay dellu ci syndicaliste yi élèves ak étudiants yi religieux yi naka noonu fonctionnaire architecte yi nag ak ñi di way politique yi ñoom ñëpp fas yéene nañoo wàcc ci mbedd mi ngir li xaw ci réew Sénégal li xew ci biir Sénégal jamono ji nag bokkul ca la ñu doon waxtaane ci sommet bu CEDEAO bañ doon amalee démb ca Abuja capitale bu Nigéria laaj bi samp nag mooy li waral ba débat doon amal nag boolewuñ ci situation ci réew Sénégal jëwriñ ju ñu dénk jëflante biti réew ma ngay indi ay leexal ci biir yëglekaay bi réew mi people tey jii nag Flageolip moom la daal di dalal mu di artiste bu passionné lool ci lu jëm ci wàllu héritage africain yër leen bi la yëglekaay séq nag ana caw waxtaan wu yaatoo yaatu addu ci wàllu tàggat yaram ak sunu lamb nag ma ngay dellu suwaat ci Eumeu Sène Ama Baldé booy Niang ak Sokh mbër yi yëpp nag nekk ci ay jafe-jafe waral yëglekaay bi di samp ab laaj na lu ñu war def rek ngir mën a sauver jafe yi nga xam la ñu nekkee ci jamono ji jeexale yëglekaay yi ak libération mu dellu siwaat nag ci musiba mbaaba kumba gi xew ci diwaan bu Thiès yéenekaay bi ne benn waay moo yore paaka nag daal di rendate boppam ca kanamu poste de police bu ngent mu di mbir mu yéeme moo xam ne rek ma nga xewee ca Thiès Nord bi mu noppee nag dafa di faatu ci saase yéenekaay bi di xam ne nag ni waa ji dafa amoon ay jafe-jafe xel ginnaaw gi nag la ko ay waajuram daal di indi foofee ca diwaanu Thiès ngir mu amal ay traitement waaye mujjanteel gi nag dafa daal di rendi boppam ba mujjee ñàkk bakkanam société